waaw salaamaaleykum Sénégal non sama xol moo jeex tey moo tax ma def vidéo bi nii benn mooy ñun musiciens yi dañoo yëpp man xamul nu mu demee noonu amuroo benn si yow yow naa fekk nga yow amuroo fii nga daan nekk di jaay nit ñi alaf affaire du diine mais yow gëmoo dara parce que Sëriñ Fàllu yow naa fekk nga te ku la déglu naa fekk lay doon bët ki démboo njaay la suñu rakk yi dee si ndox mi ñu am métit lool di ko jooy tey nga taxu di xuloo si soirée xuloo wuloo avancé dëkk bi de non non affaire soirée yow amaroo naa feq nga te bu la Sidi Diop dégloo doo dem Sidi Diop boo ko dégloo doo dem Sidi Diop ba ngay ràmpe xamoo amaroo teewaat nga njëkke di ràmpe bëgg seen Ndakaaru boobu xamoo kuy amaroo kon succès bu mu ñëw rek nga bëgg a déglu waxu nit ñi xoolal fa nga jóge woon fa nga débuté woon di ko jaayante bul jiiñ kenn moo yàq sa soirée conseil bu ma lay jox nag la li si am njariñ jël ko li si amul njariñ nga wàcc mu dem mais conseil bu ma lay jox la bul ñaawoo kenn mbiru zaahir yi jarul ñaawoo kenn day jeex rek ñi fi dàqana woy tey ñoo ngi nii anañu kon lii day jeex jërul ñaawoo bu la nit jay ba la diw la ba nga taxal diw non non bu tudd kenn jàpp yàlla suñ boroom moo war a yemale fi soirée bi yamale na ko fa point bu si ñaawoo kenn loolu rek laa lay jox comme conseil man nga woy yaa ngi doon liggéey liggéey nga ba agsi bu ko yàq lool rek laa lay ñaan fekkee man nga ma koo may bi si des mooy waali nañ bàyyi doomu jàmbur ci ngir yàlla nañ ba waali sekk waali doomu aadama gënu ko xol man ñi ko gën a contre ci laa bokkoon man waali dama ko contrôle mais dama xam ni doomu aadama gënu ko xol bu kulli woykat bu ne Sénégal waali moo la gën a rafet xol lu liggéey bokku na ko doomu aadama yi musuma defal dara nag musuma may dara xawma këram xawma fu mu dëkk mais doomu aadama gënu ko xol barke alxuraanu karim wala bi ma koy xam terrain football lan bokkal mais musuma xam ni sax kii da yaan woy mus naa woy baa doomu coon segal loolu sax musuma ko xam mais raf ku rafet xol a ngi noonu Wally ban intérêt lay am ba yàq sa soirée ban intérêt tey boo gënoon def concert Wally def concert Wally moo la njëkk fees la leen waxante dëgg nit ñi ko bëgg yow nit ñi bëgg nan la mais nit ñi ko bëgg kon am na yoo xam ne si bul déglu nit ñi ba ba jëm koo jéem kenn muy Wally muy beneen woykat ba ko jiiñ kenn liggéey sa liggéey te gëm ni xoolal war ngaa gën a mën a réussir. ndax dangaa ñaan yàlla àgg fa ay Youssou Ndour àgg jamono yi woykat yi boo ne Youssou Ndour danga naan waali mu neex mu yi te waali ñi ko njëkk commencé woo yàgg nan wóor na ko tudd sax ay Youssou Ndour di ko tudd mais lu ko yàlla may la yow it li la yàlla may mi la koy may mais bu déglu naa feq yi wax ñooñu seen intérêt rek moo si nekk billahi seen intérêt la ñuy xool te bis boo xeewee te hmm. nga xamante ne si xolal nit ñi jër noo defal dara waaw loolu rek laa la jox comme conseil